mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax am mbégte ak kontaante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii parcelle unité 12 seet si suñu frère suñu xarit Cheikh Ndiaye fa yéene nag seqal ak moom waxtaan bu yaatu yaatu seex Ndiaye nag ñëpp ràññee nañu ko à travers li nga xamante ni moo di TikTok bi nga xamante ni moom mu ngi koy def aar bi nga xam ne tamit mu ngi koy def muy wàllum defar ay tableau yooyu dinañu waxtaan ci loolu waaye dinañu waxtaan ci handicap bi nga xamante ni yàlla def ko ko teg euh, loolu la ñuy waxtaanee dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu ak mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di wasaare bu ko defee ñu daal di xoos dugg si waxtaan bi euh, Cheikh maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu mbokk internet yi may seetaan yëpp maa ngi lay nuyu ñoom ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant. Cheikh tey ñu fas yéene seqal ak yow waxtaan fii ci wasaare société euh, ñu ndooree rek ci point bi nga xamante ni moo di handicap bi nga xam ne euh, loolu moo la dal nga nekk koo xam ne aussi ku gëm yàlla nga euh, nekk koo xam ne ku jàmbaare nga gis nañu la si TikTok bi gis nañu la si tableau yi nga xamante ni tamit yaa ngi si daan sa doole tey boo ñu doon ñëwal ci handicap bi nga xamante ni moom moo la dal kañ lan nga rek nga mën a wax foofu. comme man daal yëguma ni handicapé moo ma dal quoi parce que considéré ma sama bopp comme handicapé dama considéré sama bopp comme koo xam ne lu nit war a def rek war naa ko mën a def lu nit war a taxaw pour def ko war naa ko mën a taxaw pour def ko lu ñuy di xalaat pour réaliser ko ëllëg man loolaay xalaat pour réaliser ko ëllëg mu jima amal sama bopp bañ a si kenn. mën nga ñëwal ci feebar bi ci li nga dégg liñ la wax wala yow ci li nga fàttaliku rek narka la la dalee. man si si li ma dégg moom si feeru lu ma moom dama li yaay wax dafa ne benn benn kii la benn guddi lawoon woon mu dem jëli si sama maam ay guddi pour andi ma si moom léegi mais bañ tëree ba ay cinq heures du matin ko ko dëkk àll la dafa waroon jug pour. dand fan la exactement. Cenjeng Jurbel léegi mu ba mu waree euh, cinq heures du foofu dëkk aar la cinq heures du matin la jukkur defar café fekk na boobu maa raam léegi si la benn sondeel nekkoon sama côté rek ma laa ko ma laa ko ma laa mhm. après si la ma jàppaale. Mhm. bi moo jàpp fekk na yow yaa ngi si matelas bi tëdd. waaw. d'accord nettali ñaata at nga amoon. boobu si li ñu wax maa ngi am ay six lañu lañ waxoon waaw. d'après ci la sa yaay wala sa maam ci lu la nettali bi mu la yóbbu hôpital si yan anam la woon. man boobu boobu fekk na yaram bi yaram bi yëpp jàpp na am na ay yu ma jotoo yu ma jotoo passé sax comme si liñ ma nettali euh, ay hôpital Diourbel ay yooyu noonu yooyu yëpp romb nañ ba dañoo romb hôpital ba yegg si Dakar mais hôpital bu ma bu ma musoon romb dañu naan kii mënuñu ko jël léegi ba ma demee seetuwoo nag si la waa seetuwoo ay nit yu baax ñoo fa nekk nag di leen waaye si lañ jëlee jàppale ma waaw. sa yaay moom naka la doon dundee rek jamono jooju wala sax jamono ji nga xamante ne lii daal na la. non dundewuñ dara lu jàmm rek sama yaay moom nit ku yàlla la quoi waaw. yaay taawam. non am naa mag bu jigéen. ñaata nga am yow. maa ngi am 17 ans. ans d'accord presque. d'après bi nga màggee gis ne fi mu nekk nii feebar bi nga xamante ni mu ngi ci yow naka rek yow nga ko na ko dundee bi nga jour bi nga jógee yëg nga ne yow mii danga am feebar boo xamante ni mu ngi ci yow naka rek nga dund yow. non feebar bi man lu ma dund yëpp lu ma xamee xamee ba léegi nii yëgu ko de. parce que man ba may nekk xale bu ndaw la ma sama yaay doon bàyyi may dem si mbedd mi ma dem si mbedd mi nag fekk ay ay sama morom yu baax samay mag samay xarit te surtout samay xarit nag ñi nga xam ne duñ rus ànd ak fu ma fu neex lañuy ànd ak man di naa leen ki ngeen ànd wala dara dañ ma jàpp comme seen xarit yërëm ma jàppale ma te comme man li ma dund nii yëgu ma ko de waaw yëgu ma parce que considéré ma comme te lii su ma toogee di ko jooy comme damaa seytaane rek parce que man xaw ma xaw ma loxo yu baax xaw ma kanam bu rafet xaw ma dama judd màggaale nii rek moo tax. sa côté xarit est-ce que duñ leen faral di wax ki ngeen di àndal wala yooyu. non leen ko wax parce que ñoom am nañ fulla boo xam ne ñoom dañuy ànd ak man man tamit am naa fulla boo xam ne man damay ànd ak moom réeroo du am suñu biir duñ déglu kenn te ñoom tamit ay nit yu baax lañ ko wax ba faralee di génn ci li nga xamante ni moo di société bi ku nekk xam na Sénégal ni mu mel ku nekk xam na Sénégal yenn saa yi yéen ñu ñuy xoolee yenn bët yi euh, naka naka rek lañu lay xoolee wala yan kàddu rek ngay faral di dégg ci ñoom. yenn saa yi ma dégg kàddu yi ma neexul mais man si boo nekkee sama ginnaaw di wax duma duma la duma la duma la duma la faale duma la tontu. pour ñu nekk sama ginaar di wax sama ginnaaw mooy seen place mais sax taxaw sama kanam naa ma seexal yi seexalaa parce que wanu ma leen kanam boobu te Sénégal nag dafa nekk dëkk dëkk boo xam ne moom di euh, bëri na ay nit ñu baax de mais ana ñoo xam ne mooy loolu. yan kàddu rek ngay mës a dégg yoo xamante nii tey boo ko fàttalikoo dina nekk loo xam ne lu ma laa marqué la. non man du faral di dégg ay kàddu yu ñaaw nag. du ma faral di ay kàddu yu ñaaw parce que man am naa fulla boo xam ne may ma kenn may wax kàddu bu ñaaw wala dara lu ma metti mais dégg naa nga ne saa da ngay faral di dégg ci ñoom yoo xamante ni du la neex mën ñëwal ci yooyu yan nga siy faral di dégg. non am na yoo xam ne moom bëgguma si bëgguma si wax waaw. mais ban jour rek nga ma a fàttaliku nit wax la loo xamante nii nga xam ne lii la kiy wax metti na ma mais dama koy bàyyi ak yàlla. mais am na am na. si lu ma fàttee la ko daal ñenn sama samay mbokk yi bañ ma daan dañ ma dugal école pour ma jàngi mais euh, am na xam ne dañ naan kii du dem kii du kii kii kii jàll du jàng duñ ko kii comme ça faral dégg sama yaay moom dafa gëm yàlla ak ñi am na ñi ñu baax ñu may jàppale moom ñoo ñëpp dañoo gëm yàlla. kon jotoo maa jàng quatrième laa def école boo demee école naka rek lañu lay xoolee ñoom. non si école moom xoolee bu ma dara waaw xoolee bu ma dara moom parce que école boobu foofu laa defee jardin ba ba quatrième. mais ci côté askan bi laay wax comme ni Sénégal xam nga ko xam naa sénégalais yi jaam leen gën a xam ñoom du ñu jàppee comme ni nga ko waxee tey man nekkul ko man euh, damay jàppee nit que man maay nit normal te man ku ma gis xam ne man handicapé laa ci sama xel ndax xel mooy nekk li nga xamante ni mooy jàpp li nga xamante ni moo di handicapé mais ci côté askan bi yan benn kàdd ban kàddu nga si mës a dégg loo xamante ne ni kàddu boobu boo koy xalaat di nga xamante ne kii kàddu bi ma wax lu ma marqué la. yenn saa yi am man sama mag bu may ànd ak di defal vidéo Baye kooku noonu day pare saa yi dañuy génn si mbedd bi ñaan yow da topp di utiliser Cheikh waaye yan yi te fekk naa lu baax la si jublu waaw. utiliser comme naka comme vidéo yi comme ça muñ ko def. comme moom day utiliser pour comptam pour comptam développer pour yenn yenn visibilité yi daal te du loolu. jafe-jafe yi ngay dund ci sa koñ bi nga xamante ni fi nga dëkk yan jafe-jafe la. non suñu koñ moom dund ma fi benn jafe-jafe parce fii laa màggee fii laa yaroo dañ ma xam miin ma moo tax. sa digganteeg sa maam naka la deme sa maam non loolu ba may nekk liir la ba may nekk xale la mm. loolu comme ça fa lañ dëkkoon daal man sama feebar moom andi Dakar mm. ba tay jii ba tay ba may am 6 mois laa ñëw Dakar mm. ba léegi. waaw maa ngi traitement c'est tout. ci côté liggéey bi liggéey bi naka lay demee. ah liggéey bi yenn saa yi dañuy defar tableau du dox mais après saa yi dama après saa man ba ma commencé defar tableau ba léegi benn tableau laa jaay xaw ma ñaar mais sant yàlla mhm. parce que parce que xaalis xaalis bu may pour pour ma defaree tableau xaalis bu ma ko xaalis boobu noonu. pour sama yaay la jëm pour ëllëg ñu amal suñu bopp am suñu kër bopp waaw. kan lan moo la dugal ci métier defar li nga xamante ni moo di tableau pour jàppale sama yaay kase moo si dugal parce que sama yaay maay taaw góor te tey maa ko war a maa ko war a maa war a ko war jàppale waaw te dafa sonn si man loolu tax ma dugg si si aar. te fi ngay defaree tableau yi yaa ko moom wala daa am kenn koo xamante ni rek moom ngay jàppale ci côté boobu. non moom moo ko de dafa am koo xam damay jàppale tonton Lamine la tudd ku baax daa ay sa moom boole moom daa ay sa tamit ku baax moom boole moom su ma demee damay may mais pare saa yi ma tax damay am lu may dawal pour jënd yenn peinture yi yóbbaale ko pour mu xam ne am na lu may def quoi. defaru table bi naka lay demee ci sa côté est-ce que yomb na. non defar table bi yombul yomb na. Mhm. yombul yomb ci ban côté la jafe exactement. ban côté la jafe pour jënd ay peinture yooyu côté boobu dafay dafa metti te boo defaree pare du jar kenn du ko jënd mhm. loolu lan moo tax nit ñi duñu ko jënd tableau yi def leen naa neexul wala pour nga xëcc client yi mooy doon problème. comme ça lii laa am collaboration ak ak ak euh, yenn visibilité yi quoi.